professeur Istogeo bi ñuy décapité ndax xam nga ñun yàlla may nañu ñun waa Sénégal ñun ñëpp a bëgg Seydina Mohamed waaye luñ koy bëgg bëgg bëgg ak itam ku ko tooñ mbaa nga saago ko lu mu ñuy metti metti yàlla may nañu dal ñu mën koo dékku mais ce n'est pas le cas de tout waral nag mu am benn extrémiste musulman tchétchène boo xam ne ba professeur Istogeo bi jële nataalu Seydina Mohamed wane ko dafa teqali koog sago dem fab jaasi gor bopp bi par la faute di président Emmanuel Macron bañ ko waree dëj le 21 foofu ci esplanade Sorbonne bañu indee néew ba ñu ne Emmanuel Macron mooy def discours njaal bi àdduna yëpp ne alhamdulillah xëy na dana nekk occasion pour moom mu jubbati jubbanti wax ju dëng jëlee mu waxoon te mu naroon taal àdduna. ñu tàllal ko micro mu fab essence sottiwaat ci safara bi daal di ne la France ne renoncera pas aux loolu nag moo waral tout le monde arabo-musulman ne jëppee tàkk Algérie wàcce nañ ci mbedd mi Tunisie wàcce nañ ci mbedd mi Qatar wàcce nañ ci mbedd mi même Iran bi nga xam ni am na ay wuute entre chiite ak sunnite dañu fàtte yooyu yëpp chiite ak sunnite def benn dank ñëw jàkkaarloog Macron. ne ko ñàkkee teggin bi ngay ñàkkee teggin suñu yaakaar doy na sëg waaw bu àdduna yëpp defee loolu ce que ñun senegal am nañu droit bu ñu nekkee ci gàmmu yi nekk ci ziar yi nekk ci màggal yi di fëgg suñu dënn naan euh, téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom ay julli dañ ñu di ko bàkkoo boole ci naan innamal mu'minuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañ est-ce que dafa war a yem ci ay wax rek yàlla daal di indi occasion ne lii ngeen di wax bu dee dëgg ci yéen jëfe leen ko loola waral nag jéego bu njëkk bi ñu ngi ko defoon le 28 le 26 octobre fii ci ambassade France déposé nañu lettre de protestation maanaam ñaxtu ndëgëndiku parce que diggante 26 ak 29 di gàmm gi dara xaju fi woon moo taxoon ñu bàyyi ba ñu gàmm ba ñëpp a féex ñu ngi gërëm suñu mag di suñu nijaay imam Ahmed Dame Ndiaye qui est le président de la Ligue des imams et des oulémas moom moo fa pusoom boole organisation islamique yëpp jambara teg programme ci suuf Ligue des imams teg programme ci suuf rassemblement islamique du Sénégal bu euh, oustaz Makhtar Kame teg programme ci suuf ñun ñu daal di dëgg benn programme tuddee suñu bopp rassemblement des musulmans contre l'islamophobie moo waral daje bi tey daje bii ngeen di gis fii këru diine bu ne yabal na ndaw baa ngi fi Tiwaawan Njaasaan Canaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne et même l'église parce que man invité suma xarit suma doomu ndey Guy Marius Sagna bokkuñu ak moom diine waaye fii la toog ndax li ñu def Seydina Mohamed naqari na ko ndax nii ñu ko defee Seydina Mohamed bu ëllëgee mën na leen dal ñoom ndax bu ñu fàtte ne franc-maçon yi diine la ñuy xeex du l'islam rek alors kon nag rafetlu nañ jataay bi bii moo doon ñaareelu jéego bi incha allah bu ñu noppalu ko deux jour trois jours suñu coordonnateur imam Ahmed Dame Ndiaye dana woote une réunion d'évaluation comme ça ñu xool ñu xool troisième troisième jéego lay doon ndax day nekk ay boycott de produits français wala leneen waaye xeex bi du yem fii ndax Macron la ñu bëgg a xamal ni islamophobie bi mu yëkkati gànnaayoo ko ba pare bëgg nekk le porte drapeau de l'intégrisme laïque ñun nous sommes prêts à relever la défi parce que dafa tooñ koo xam ne kenn du ko laal bu yàggul nag am na suñu benn wasila bu mhm. Jeune nataaloon muy Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu mhm. rasul mhm. bi nga xam ne yonent bi lay noyyee keroog ba ko gars yi tooñee mbedd mi tiijaan laayeen xaadir ñëpp wàcc di ko naqarlu waaye kii ñu tooñ tey mooy sëriñu sëriñ si kii ñu tooñ tey kii ñu tey kii ñu tey mooy xalif général xalif généraux yi loolu waral nag ma ñëw ñëpp daal di dog seen soxla pour taxaw saydil awalina wa saydil axirin xaatimu nabiyuna wa imamul mursalin kooku ku ko laal ñun suñu bakken lañ ci teg incha allah. waaye man waaye euh, yi ñu war ñu ngi leen di gërëm. ndax ñun. yaakaar ñu woon lii fi mu ne boo ko xoolee ba rond point BCEAO foo sànni mbatt mu tàkk te xam nga ku ci nekk ma ñëw amul amul kenn koo xam ne jox nañ la paas amul kaaru njaga njaay yu politiciens yooyu mhm. yéen a waaxu ñi amul paas dañu dox mhm. lan moo waral loolu mhm. du Makhtar Gueye leen ko jaral du imam Ahmed Ndiaye déedéet Seydina Mohamed moo leen ko jaral ah. moo tax na ñun am nañ yaakaar ne à partir d'aujourd'hui Sénégal dana soppeeku ndax xam nga dañuy wax ne yàlla buy defar day mel ni kuy yàq makaron mu ngi xas suñu suñu suñu sang bu tedd bi waaye dimbali nañu parce que tax na ñu booloo cent vingt cinq associations islamiques yoo xam ne ñu ci bari xamante wuñu woon seen biir xamante ñu tey léegi dootul jamra rek dootul jamaadu iman rek dootul rassemblement islamique du Sénégal rek sénégalais ñu def benn dank tuddee ko le rassemblement des sénégalais contre l'islamophobie lii day continuer kuréel bii duñ ko tas day dina ñu jàkkaarloog état bi état bi defar ay récépissé jox ko góor jigéen yi dinañ ko xeex état bi jël euh, code de la famille bëgg ñu dicter naka la ñu waree takkee sëy naka la ñu waree defee suñuy miraas ci kaw ni ko formation yi tëralee dinañ ko xeex ak yeneen daara yi ñu jàpp toroxal leen sëriñu daara yi nga xam ne amuñu salaire amuñu dara te ci doomu réew mi la ñu bokk dinañu taxaw xeex ko ñii nga xam ne ñu ngi dox yi soxla pour que yàq biir ñu légaliser ko. dindi article 305 bi nga xam ne dafa condamné avortement ñiy def ay pexe pour faagaagal ko ñu taxaw xeex ko ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a faagaagal la loi 2007 31 di la loi Latif Guèye bi criminaliser le délit de trafic de drogue ndax cocaïne baa ngi lëmbe dëkk bi jàppoon nañ fi une tonne de cocaïne mois de juin daaw ñëpp a kontaan waaye balaa tàkkusaan ñu ne am na 80 kilos yu réer 80 kilo euh, cocaïne 4 milliards la bëgg nañu xam fu mu dugg loolu yëpp incha allah nekk na programme boo xam ne jullit yi fas nañoo euh, yëkk jóg xeex bi dootul xeexu jamra rek jamra wéetatul ci xeex ñu ngi sant yàlla di leen gërëm malaaka yërmande yi leen tiim ngeen yëg ko ngeen bañ ko yëg ñu ngi leen di bindal ay yiw yal na yal na yàlla kontaan ci yéen yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar suñu kilifa diine yi yal na leen yàlla dàqal seytaane yal na yàlla def jàmm ci réew mi te laqal Sénégal fu yàq asalaamaaleykum wa rahmatullah